peut-être dum ko dum bu pour ma xam nga tontu. Mhm. boo koy kii da ngay éclaircir pour askan bi comprendre. Mhm. Euh, il faut que ñu dissocier li mu wax. Mhm. li Babacar Ba wax. Babacar Ba li mu wax. dafa leer cest à diir Babacar Ba ñun société civile ñoo daje ñu désigner cinq plénipotentiaires. ci demande autorité yi pour ñu dem siéger société civile au niveau du du comité de pilotage du dialogue national les cinq ñu ñoo ko tànnandoor ñu ngi tànn Babacar baax moom ngay wax tànn. Birahim euh, Doudou Doudou Dia. bu Gorée Institute. Sadikh ñas bu RADDHO. tànn euh, nu mu tuddati euh, Mignane Diouf bu Forum Social. ak Birahim Seck mm-hmm. Birahim Seck ne non moom forum civil Abdoul Maliki Bousso la proposé mm-hmm. donc ñu jël cinq yooyu ak Abdoul Maliki Bousso yóbbu leen comité de pilotage dialogue national mm-hmm. ba ñu demee foofu ba ñuy waxtaan dans la démarche ak la stratégie Babacar Ba loolu la doon démo dénoncer et nous le soutenons parce que bi ñuy constituer le bureau du commuté de pilotage ils ont oublié la société civile que nous avons portés là-bas. Mmh. Ensuite, maintenant, ils ont même oublié les jeunes. Parce que Nyom Babacar, c'est des jeunes qui représentent presque 65% de la population. Mhm. On peut, des vieux ne peuvent pas élaborer un programme de mhm. développement pour les jeunes. Mhm. Il faut que nous, Dougal Génie, dans cette option-là, nous, nous, nous, pas mais orientation. Parce que quand même, il faut que dans ce pays-là, qu'on arrête Euh, cette stratégie toujours de faire appel vieux yi je n'ai rien contre eux mhm. je leur dois du respect ñoom ñoo créé seeni réew mais quand même fondamentalement tey bu ñuy analyser les choses Macky Sall mi bi nekk premier ministre il avait quel âge mhm. il n'avait pas encore cinquante ans Barack Obama est devenu président de la République des États-Unis à quarante-huit ans il n'avait pas cinquante ans donc quand même mhm. c'est presque des jeunes il faut que quand même ñuy def la promotion des jeunes donc pour euh, loolu c'était un benn entre parenthèse la mais maintenant pour dellu si ci coow boobu donc Babacar Ba mhm. cette non considération la la teg ci table bi mhm. ne il faut que ñu tenir parce que justement parce que le dialogue national mhm. boo xoolee dans le fond c'est des acteurs de la société civile ñoo ko nar a mener maintenant pour le cas de Birahim Seck c'est autre chose. Mhm. parce que je pense que. Euh, moom nee na commission politique bi ay rek ñoo ko composé. non non dafa juum dafa juum peut-être il le fait par méconnaissance ou il le fait par stratégie ou à dessein parce que tey et ça me désole de parler comme sa d'un collègue de la société civile euh, commission politique. d'abord méconnaissance bi. Mhm. bu mu koy wax mooy maanaam xamul trajectoire commission politique bi. Mhm. commission politique bi bu ñu ko constitué sa a été constitué au mois de janvier euh, au mois de mai. Mhm. c'était un cadre de concertation bi ñuy waxtaan di négocier opposition ak yeneen pàcc yi nekkoon ci commission bi ne du ñu nekk sous la tutelle comme d'habitude ça se faisait du ministère de l'intérieur. ci li ñu exigé woon nañ mettre en place une commission cellulaire ñu créer une commission cellulaire mu nekk noonu après bi ñu demee ba ci biir après avec le dialogue national quand le président Macky Sall a nommé Famara Ibrahima Sagna comme président du comité de pilotage il a ñun nous avons demandé au président de la République de faire un décret pour le comité la commission politique après on a discuté on a dit que donc c'est pas la peine ñuy ber on demande maintenant d'être mis sous la tutele du commité de pilotage yaa ngi may dégg baax comme maintenant on est sous la tutele du comité de pilotage c'est pas nécessaire même loolu moo tax ñu dugal le terme commission politique dans le décret créant le le comité de pilotage du dialogue national vous comprenez mm-hmm. donc c'est benn trajectoire la deuxièmement dans cette commission politique la mm-hmm. opposition bi waa front national la ngi ci et cetera ñe front de résistance nationale composante opposition yu bëri <coughs> majorité présidentielle seen composante yëpp ñu ngi foofu représenté pôle des non alignés seen composante yëpp ñu ngi foofu société civile maintenant ma taxaw foofu xam a Sénégal dafa am ñaari grande coalition mm-hmm. yuy travailler dans les élections yoo xam ne pratiquement ça regroupe quasiment toutes les organisations de la société civile muy la PLAC pacte mooy plateforme euh, pour la transparence des élections ak le collectif des organisations de la société civile ba mu bokk dañu daje waxtaan parce que dañu bind lettre waa pacte président pacte Mazid Ndiaye ak président collectif ba kër Gueye ne leen tànn leen ñaari nit ñu ñëw ci commission politique euh, cadre de concertation bi à l'époque waa pacte bi ñu dajee mhm. waxtaan mhm. te mu fàttaliku la forum civil pacte la bokk Birahim Seck sax si porte parole yi la bokk yaa ngi dégg wax li ma waa pacte bi ñu dajee waxtaan ñu choisir Djibril Gning ak daaw Daw mhm. waa collectif choisir mu Ndiaye si Cheikh Valdiodio Ndiaye ñun ñeent ñun ñoo nekk ci commission politique boobu dafa xamul il c'est-à-dire soit daf ko xam wala daf koy def exprès maintenant bu fekkee dafa am ay objectifs cachés na ko leeral Et ça me ñuy arriver à ce niveau de débat, de polémique, alors que tout le process, mm le sait très bien. waxoon na fi waxu illégalité de la commission politique c'est non maîtrise du droit administratif ñaata yoon au Sénégal li ñu créer une institution après créer peut-être beneen institution boo xam ne moo ko gën a récente mm-hmm. ñu def jël institution bu màgget bi def ko sous-traitale institution récente bi chaque fois c'est des pratiques administratives qu'on voit tout le temps et loolu la ñuy def ci commission politique bi dugal ko ci commission euh, comité de pilotage dialogue nationale yaa ngi dégg. Mm-hmm. troisième élément buy wax affaire on a nommé les gens de manière arbitraire je je je suis je suis à faux de ce de cet argumentaire la ça a été inclusif les gens ont été désignés par leur père par les deux grandes coalitions dont lui il est membre et dont il est porte-parole de ngi dégg mm-hmm. donc c'est désolant de le dire comme ça maintenant mm -hmm. désignation arbitraire pour désignation arbitraire lui il nous a déjà musuñu informé naka la ko Macky Sall nommé mm -hmm. euh, si mm-hmm. parce que ñun ci quarante yi Macky nommé la bokk et ça n'a pas été inclusif deuxièmement dañ yeew rek gis ko foofu te pourtant y a un membre on a pris dans notre groupe des cinq un membre de la du forum civil moom lañ njëkkoon jël sax mu mu ne non ñoom dañu réunir désigner Malick Boussou mm-hmm. après il se retrouve là-bas mm-hmm. troisième élément bi muy dem il membre du conseil économique et social mm-hmm. environnemental bi bi ñu ko bi ñu koy nommé on l'a toujours soutenu mais ça n'a jamais fait l'objet de concertation au niveau de la de la société civile pour dire voilà notre représentant au niveau du conseil économique et social Macky Sall moo xëy rek kii ñun on n'est pas intéressé par les décrets c'est lui qui gère les décrets mm-hmm. donc il doit arrêter de critiquer les gens en disant que c'est des trucs arbitraires de nous personne n'a bénéficié de décrets parce qu'on n'en veut pas on est engagé aux côtés des populations dans le combat des populations on n'a pas besoin de décret pour faire ce que nous faisons